iqra bismi rabbika alladi xalaq xalaqa linsana min alaq asalaamaaleykum mbokki taalibe yi jot nañu ndigal nag ci Cheikh Amadou Mountakha Mbacké ñoo ngi ñaan mu yàgg fi lool te wér ñëw ca Serigne Moussa Mbacké mooy Cheikh Mamadou Lamine Bara ak Cheikh Abdoul Karim Mbacké borom Mbacké Bari mi nga xam ni moo toogee jataayu Serigne Abdoul Aziz mu Cheikh Mamadou Lamine Bara ak Serigne Abdoul Aziz Mbacké mi nga xam ni moo toogee jataayu Serigne Moussa Abdoul Aziz borom Mbaam Jigaan gis ngeen université bu mag bi Cheikh Amadou Mountakha Mbàkke def ci fan weeri milliards ak lu topp lii nag njabootu sëriñ Touba ñoo ko fent xalaat ko indil ko Cheikh Amadou Mountakha jiital nag seen doom seenub soppe seenub taalibe jàmbaari lislaam di kenn ci réew mi di sëñ Maam Baara Mbàkke moom sëñ Moustapha borom mbaam jigaan danoo bëgg ñetti complexe yoo xam ne yi xidmatul xadim la ñu ko tuddee Serigne Touba Cheikh Saliou Mbàkke borom ngot ak nguur moo joxe wul tur wi sëñ Maam Baara Mbàkke daara ji mu amoon ñu doon tari tarib alxuraan bi dañu denc leen ko le 18 tombé juróomi fan ci weeru safar moo tax sëñ maam Baara ànd ko buntu këri sëñ Tuubaa ak yoon wi ak cheikh yi kenn desul le 10 août nag la ñuy xeeru complexe yooyu fa nga xam ni fa la ko cheikh Sidil Maxtaar joxoon ca Mbàkke Bari waaye ci ñetti xeble yi na xeer wu ne dana ci am complexe bu ne dana jël un milliard. bu tegal téeméeri million ak ñaar fukk ak juróom-ñett ci ñetti daara ji a ah, bii daara na ñu tudde ko Cheikh Sidil Makhtar beneen bi nag ñu ngi ko tuddee soxna Astu Waalo waaye bii nag ñu tudde ko sëñ Moustapha borom mbaam jigaan xam ngeen ni nag bisu tari bi ñu jagale ko jàmbaar jooju di Cheikh Ibrahima Mbacké bàyyi fi taaw bu mat sëñ daam atta ak sëñ fallu ak rakam ak njabootu sëñ Ibrahima gi yëpp Cheikh Amadou Mountakha jox leen ci digal dañoo bëgg ku génnee ci complexe yooyu dem dugg nag ci biir université bi lenn bañ cee génn Serigne Touba kon la 10 août la woo nañu ñëpp ca Mbàkke Bari bàyyiwuñu kenn ko iqra bismi rabbika alladi xalaq xalaqa linsana min alaq